ci diwaanu Poroxaan ñuy waajal màggaluk soxna Mariama jaaratu laa gi tey jii nag ci jeudi bi dëppook le 20 février 2020 ñu fiy amal guddi àjjuma goo xam ne at mu jot ñu ngi ko fiy def ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké Bassirou Serigne Amsatou Mbacké di taxawee lu nu mel ànd kook soxna Baali Mountakha ak mbooleem taalibe yi guddi googu nag dañ koo dooree biñ xëyee ak njàngum alxuraanul karim goo xam ne yaatu na lool muy njàng moo xam ne bi biñ xëyee lañ ànd ak mbooleem daare alxuraan yi nga xam ne teewoon nañ ñu jàng fi alxuraanul karim ci lim bu takku ngir jagleel ko ki nga xam ne moo di soxna Mariama Bousso Jaaratullah njàng mi nag amal nañ ko ci njiitalul Serigne Cheikh Bousso imam mi nga xam ne moo doon taxawee lu nu mel ànd kook mboolem daare alxuraan yi ak mbooleem taalibe yi nga xam ne bi ñu xëyee rek ñëw nañ fi nga xam ne moo di ci poroxaan ngir fas yéene waajal guddi ajuma gi ànd ak daare alxuraan yi soxna Mariama Bousso jaaratulaa ku ko tudd tudd alxuraanul karim loolee moom moo tax def nañ ci pastéef lool ba bi ñuy julli tisbaar rek ci lañ matal ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett daal di jàng xatmu bi allahuma balig sawaab ma qaranaahu wa nuru ma talanaahu ila ruhi sayidina muhammadin alayhi salaam ila ruhi ashabi radiallahu anhum ajmain ila ruhi jami al anbiyai wal awliyai wal mursalin ila ruhi abaina wa ummahatina wa ixwanina wa asdiqaina wa asatizatina masaqina qasa ila ruhi hadid sahn jarit ila ruhi jami al muminina wal muminat والمسلمين والمسلمات الأحياء من وأموات من أحام وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واغسل من قتل المسلمين امين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واغسل من قتل المسلمين امين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واغسل من قتل المسلمين امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحه ñaar fukki kaamil ak juróom ñett jàng nañ ko ci ndigal li ñu joxoon mat na sëriñ Lamine Mbaye jàng na xatmu bi ci teewaayu ñu jiite woon kaamil bi yëpp ginnaaw bu ñu jullit subaar bu noppi loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu séddoo ñun waa daaray alxuraan yi ci ndigalal sëñ seex Lapp mu jaarale ko ci sëñ bu Boussa imaam muy suñ jiit noppi na jàng nañ xatmu bi ñu jébbule ko loolu mooy li nga xamante ne mooy ndigal li nga xamante ne moom la ñu joxoon kon nag ñu ci sant yàlla bu baax di gërëm gannaaw bu ñu matalee ndigal yi nga xamante ne moom la joxoon di ñaan yàlla yàlla yóbbuñu ci màggal ko ci jàmm te lépp luñ ci def sans borom nangul ñu ko te leen ñëpp yool bi ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm barki Amadou Khadim ginnaaw njàngum alxuraanul karim gi ci la sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohibou bu agsee ànd ak mbooloo mu takku ñëw fi nga xam ne moo di ci diwaanu Poroxaan bi mu agsee nag dafa jubal directement ci jumaa ji ginnaaw bi mu ba noppi ci la ñëw ci barabu soxna Mariama Bousso jaaratulaa gi ni nga xam ne at mu jot noonu la koy defee ànd kook taalibe yi dal di fay jàng alxuraanul karim ci teewaayu ñi nga xam ne ñoom la àndaloon waaye it jàng fii li nga xam ne moom moo di ay xasida loolee di liggéey boo xam ne sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Souhaïbou bu at mu jot bu ñëwee fii ci Poroxaan dana ko def fii ci barabu soxna jaara Bousso bi laata muy def dara loole ren jii noonu la ko yeesalaatee ci wàccaayu guddi àjjuma gi ànd kook mboolem taalibe yi. ginnaaw bi mu ziyaaree barabu soxna jaara bi ba noppi ci la sëriñ Amsatu Mbàkke dem daldi seeti ki nga xam ne magam la di soxna Baali Muntaxa mu fekk ko fi nga xam ne moo di ci résidence maam jaara bi ni nga xam ne at mu jot noonu la koy defee moom it ziyaar ko mu ñaanal ko mu daldi dellu dem fi nga xamante nii moom moo di ci bërëb biñ ko dalal foofee ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi ñoom ñëpp ñëw nañ ngir ziyaare ko ci bés bi nga xam ne bés bu mag a mag la ñu koy amal fii ci Poroxaan di ci waajal màggalug Soxna Jaara Buso gi ginnaaw ziyaar yi demal nañ leen ci bërëb bi nga xam ne fa la ñuy waajalee bernde yi maanaam ca waañ wa ni nga xam ne noonu la ko Soxna Baali Muntaxa di defee at mu jot ñu fekk fa suñu naataangoo Sëriñ Muntaxa Njaay ngir mu indil ñu la nga xam ne moo fa am ci wàccaayu bernde gi. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi comme ni ko El Hadj Fallou si la waxee ci kaddu yu am solo yooyu nga xamante ne bi wax na ko ci euh, comme euh, bisu euh, guddik xasida gi nga xamoon lañu abal fii ci Porokhane ñu ngi jaajëfalaat bu baax a baax soxna Baali Mbacke Muntaxa ci bernde yu am solo yi nga xam moom la ñuy waajal fii ku xam soxna Baali xam ko ci bernde yaakaar naa loolu moom waxatuñ ko kenn kon nag mbokk yi ñu àndandoo ak yéen rek. jëlal leen li nga xamante ne bii moo nekk fii ci waañ wi comme soxna yi ngeen ko gisee nii ñi ngi fii ci waañ wi di defar bernda yi wax dëgg yàlla ànd ci Pastef euh, ñii nga xamante ne ñoo yaaga ànd ak soxna Bally fépp foo xam soxna Bally mi ngi fay dem ak fépp foo xam nekk na fa ngir war a teral doomu aadama yi rawatina nag jànkatu xasida yi rawatina jànkatu alxuraan yi ak mboolem koo xamante ne bii sëriñ bi am na ko rek ci gan soxna si dana def lépp loo xamante ne bii euh, lu kawe njot lay doon kon nag mbokk yi ñu àndandoo ak yéen rek jël lenn ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo ne ci biir waañu su ko defee ñu indi ñu ay kaddu ci liggéey bi fii ni muy doxee kon ñu ànd ak Serigne Moustapha Lo rek ci kaddu yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu sant leen nuyu bu baax a baax ci liggéey bi Serigne Touba bi ngay liggéey wax dëgg yàlla jaaxlewuñ dara namuñu dara nag ci benn tale ndax wax dëgg yàlla ndax lépp luñ euh, nekk rek ci liggéeyu sëñ bi ak soxna si yaa ngi ci di bay sa waar comme ni nga ko waxee ci bis bi nag bis bi yàlla suñu borom dogal na yàgg nañ cee ñëw yàgg nañ cee ñëw yàgg nañ ko fekke bis bi nag nekk naa bis bu ñor soxna si bis bu ko ñor bu ñor sëriñ bi nag ñor taalibe yëpp nag ndax démb démb ba léegi kenn la wut ci ni ko soxna si santaane kenn la kenn deful dara ay at nag mi nii comme ni ñu ko defee gisee mbana yi démb lañ fi ñëwoon ci tàkkusaan ne ci waañ wi boobu ba léegi soxna yaa ngi ni toog ku ci mel ne soxna baa liggéey soxna Manfa Touré soxna Daba Diallo ak soxna Xali Mbay Jurbel ñoom ñëpp ñëw nañ teew nañ ci liggéey bi kon dañ leen sant bu baax a baax di xam ne jàngkat alxuraan yi ñu ngi fi berne yi nag moom dara dara dara dara dara dara berne yëpp mi ngi fi bàyyiwuñ dara soxna si bàyyiwut dara bàyyiwut nag bàyyiwut xar bàyyiwut giléem bàyyiwut bëy waaw noonu la soxna si waajale ñaan yàlla suñu borom mu bàyyi ko fi may ko fan wu gudd gu ànd ak wér ci barke Sëriñ Tuubaa liggéey bi nag moom dañ ci gën a kontaan bu baax a baax a baax a baax ndax ñun daanaka dañoo jur ci taalube yaru ci taalube màgg ci taalube di ñaan suñu yàlla suñu borom tamit suñuy doom màgg ci taalube yaru ci taalube wax bi su xas day nag moom sant lañ ci àndal ndax ku xool Sëriñ Muntaxa ñu def xas day rek nga war a santaat bu baax di ñaan bis bi yàlla na ko suñu borom saxal soxna Baali nag bisu xas day da koo fonk berne yi nu mu toll da koy xeeb lu nekk la ciy def lu ne sant nag am Ndiaye mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ci waañu ak ñu ko bokkal ñëpp taxawaay bi rafet na macha allah di sant soxna yëpp it di leen ñaan seen taxawaay yàlla na ko yàlla yàggal mbiri Sëñ Taxaa moo mel noonu lu waay def rek da nga koy xeeb fi ne nii gis nga bisu xasida yi avant bisu xasida yi mën na 15 jours chaque jour ñaa ngi di togg yekk di joxe bernde commencé na daal fukki fan ak juróom ak tey ak magal gi di ñëw. liggéey bi nag mbooleem jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekkoon ci waañ wi ànd kook mbooleem soxna yi def nañ ci pëstéef lool ba li nga xam ne moo di bernde yi bi mu noppee soxna Baali Muntaxa dal dinay ñëw ngir saytu liggéey bi ak bernde yi ni nga xam ne noonu lañ ko waajalee lépp ñu organiser ko ngir fenn fu ci nekk ci kilifa ñu xool bernde yi nga xam ne moom lañ fa war a yóbbu ak mbooleem li nga xam ne moom la war a àndal ndax bëgg-bëggu soxna Baali Muntaxa bokk na ci mbooleem kilifa ak taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw fii ci Poroxaan mu leen di berndeel bernde yu am solo moo tax liggéey bi yiteel ko lool te it da koy saytul boppam di ko taxaw saa su ne ndax moom taxawaayam yépp moo di liggéeyal Serigne Touba ci jëf ju sell waaye liggéeyal maamam ji nga xam ne moom lañ ko tuddee muy Soxna Jaara Buso ginnaaw bi ñu seddalee bernde yi lenn ne mu saytu ko jox leen ndigal fi nga xam ne fa lañ ko war a yóbbu ci la ñi nga xam ne ñoo di jëwriñ yi ak taalibe yi jël mboolem bernde yi nga xam ne moom lañ waajaloon def ko ci jumtukaay yu mucc ayib murite lool ngir jébbal ko ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ak taalibe yi teewoon ci bés bile. lu jiitu loolu nag am na kàddu yoo xam ne taataan nañ ko ci sëriñ Mamoun mu ñëwaat ci taxawaay bi nga xam ne soxna Baali Muntaxa am na ko ci bés bi nga xam ne moom la ñuy waajalee màggalug soxna jaara gi di guddi xasida gi. ci bernde yu am solo yi nga xam ne waajal nañ ko ci waañ wi. ñu ngi fii nag ci poroxaan nekk ci wàccaayu màggalu poroxaan ginnaaw bi nu ñaanalee sëñ tubaa sëñ Muntaxa Basiir mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba naal yi mu naalal lislaam naalal ko sëñ mu àggale ko sagoom mu jiite ko téeméeri atu tàmbali tey te nu ànd koog moom nekk fi nag ci dëkk bu sell bi di poroxaan buñ ne poroxaan nag ne sunu maam soxna jaara maam soxna jaara yàlla nañu ko yàlla fayal ndax bis bi gis na saa bu jubsee jullit yi fu ne ci àdduna bi dañuy dagg di ñëw dégg nga ñu ne jenn jigéen ju am màggal mooy soxna jaara Mariama Bousso ñu toog nii nag jàkkaarloog sëtam bu baax bi turandoom bi nga xam ni su bàngoon gu dégg ba ca yëngoom ak dalam lépp soxna jaara la waaye nag ki biir ëttu kër sëñ Muntaxa Basiiru muy kan soxna Baali Muntaxa bintu Serigne Souhaïbou Mbacké Xaadim Rasuul tey jii nag di bu màgg ci Poroxaan bu sell di bis bu rëy bisub yoonu murit tey muy lan màggalu xaside yi nga xam ni at bu jot mbooleem njabootu sëñ Tuubaa gi ci njiital Serigne Amsatu Mbacké moom Serigne bu ak sëñ Abdou Samad Magam sëñ Basiru moom sëñ Abdou Khadir njabootu Serigne Touba gi ñëpp àndandoo ak sëñ Amsatu fekk si seen jigéen bii nga xam ni ñoom ñoo bokk lépp muy soxna Bali Muntaxa ànd ak moom ci bisu xaside yi ndax soxna si nee na bis bi kat moom bi mu ko njëkkee xalaat muy màggalu xaside yi nga xam ni guddi àjjuma fii ci Poroxaan waxtaan waxtaanteeg Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou Serigne Mountakha jox ko ndigal ne ko Serigne Amsatou Mbacké nëgam mooy sa lépp yëkkatiwaate lépp nga teg ko ci loxoom waaye soxna Bally xamal nañ ni boobaak tey Serigne Amsatou Mbacké bis bu saa bu jotee mu ñëw ak ku mu am bàyyi yitteem yëpp ànd ak moom bis bi nee na nañu xam ni Serigne Amsatou Mbacké mooy def lépp jàpp na ko moom soxna Bally fonk na ko jiital na ko ci léppam moo waral gis nga noonu ñu ngi nii ci waañ wi ndax kuréel xasida yi bii si tàmbali nuyoo ñëw ak oto yi ndaw ya kaar yi jóge fenn fu ne ci gox ci biir Sénégal mboolem waa awlu xasaa it tey bi ci gudd lañ tàmbalee fanaan ci kenn desul ñu fas yéene na ñëw àndandoog ñoom ci bis bi moo tax ñu ngi nii ci waañ wi fas yéene jël xéewal yi nga xam ni moo jëm ci jàngkatu xasida yi ñu tudde leen ahlu xasida seen nga noonu seen Ibra Gueye mi nga xam ni ah moom la soñ bi jëwriñal ci diggam ak soxna si mi ngi noonu taxaw ànd ak sëñ Abdoulaye Touré ngir ñu mën a ñëw saytu ndab yi xool fenn fu ne la fay ñu def ko ci ndax soxna Bali bis bi da koo ñor bis bi dafa rëy moom ba tax na ku mu am ak lu am day woo ñëpp ñu ñëw ànd ak moom ci bis bi jàpp ko jàppale ko ci àgg nañ ci sax ba naan képp koo xam ni sama mbég sa mbég la man soxna Bally Mountakha bisu xasida yi ñuy def ci Porokhane fu mu la fekk na nga bàyyi si yitte yëpp ñëw moo tax ndakaaru kenn desul waaye mbokk yi mbokkal sëñ Touba góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp ñëw nañ ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ñi ci ëpp fanaan si nañ biig ñenn ñaa ngi ci yoon bi di ñëw fu ne ñu jóge fa ci àdduna bi fas yéene ànd ak soxna bi bisub tey bii nga xam ni mooy màggalu xasida yi fii ci Porokhane buñ ne màggalu xasida nag ah xel war naa mën a dal bisub tey bii ku fi teew ku ne sa aajo ju ci saayir ak ci baatin ndax sëñ Tuubaa daana zikri yi wa sukkuri wa ridwaani wa mahmadati bil xalbi wal mi wala axlaami lillaahi kon ñoo ngi ñëwaat ci kanam tuuti fas yéene ànd ak yéen li nga xam ne moo des ci guddi mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëlalee ci bëccëg gi fii ci Poroxaan ci wàccaayu guddi xasida gi nga xam ne moom lañ fi amal tey jii jeudi 20 février 2020 di waajal màggalug soxna jaara gi di guddi goo xam ne am Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu bu. moo koy taxawee ànd ko ki nga xam ne moo di soxna Baali Muntaxa waaye noonee lañ ko àndeek mboolem kilifa yi ak taalibe yépp di ñaanalaat Cheikh Mouhamadoul Mountakha ba Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér